topp maam xalifa mu loo xam ne euh, ñi ngi convoqué le xalifa général de Léona Niassène euh, police moom imam Mouhamed Ibrahim Niass ngir julli gin julli tey xalifa baa ngi nii di wujji tey police weddi na gis bokku si ñu bëree dañ ko doon weddi waaye mi ngi nii lu la faa ngi kenn du ko jeex euh, police centrale moo convoqué le xalifa général de Léona Niassène yéen ñëpp yéen koy gis noonu s'il vous plaît ngeen partagé tout le monde yéen ñëpp ñu ngi koy ñaan ngeen partagé ko laahi wa rasuli muy Serigne si al Khalifa xam ne tey moo nekk ci bopp njaboot gi moo. tey duñ ko tëj ëllëg. waaw xalifa bi neen jumaa di mu tëj duñ ko. aju bu ñu julli. Mhm. maa ngi fay xaar ba. nañ ñu ne ñëw bu waaw kon loolu leer na. waaw xalifa bi dégg nga li wax mu ne jumaa ji kenn du ko tëj. xalifa bi si boppam lamiñam moo ko wax commissaire ne ko jumaa ji duñ ko tëj kon loolu leer loolu leer na. waaw sëñ Mountakha barki démb loola def état mun leen kaa jox. seen maam bàyyi neen loo xam ne loo xam ne benn taalibe rek ne ko jox ma nanga mu ni la ko waaw yow xalifa yëpp